ñun li ñu jàng xutba bopp bépp xutba bu ñu def te def ko ci luxa bu dul arab xutba ba wérul déedéet déedéet déet bu ma laaj sama gis-gis gis-gisu diine nga may laaj waaw kay gis nga diine dafa indi bi wér waay waay yow waay waay yow xutba kay gannaaw une heure et demie la ñuy nodd Ousmane ibn ko fi indi yonent bi bawu ko fi de na nga ko bàyyi xel Ousmane ibn Affan moo ko fi indi noddu sawar dafa li ko tax muy indi ko yonent bi dafa faatu gars yi nasax am na koo xam ne bu demee ñu na sax. Mm-hmm. am na koo xam ne. su demee rek ñu na sax. Mm-hmm. benn sikk nekkul. Mm-hmm. yonent bi dafa dem saaba yi daj nañu lu ne xeex nañu fu ne xare nañu fu ne lu ne daj nañu ko pour delloo si waat nit ñi. almurtad moom daal kenn xamul. xawaari si jaar fële. ñépp kuti ku ne rek ak fa nga aw. ñu dem ba dañuy julli jumaa ba pare nga romb ay nit ñu ne moo yéen fu ngeen demoon ñu ne tey la woon jumaa di ñu ne moo dama koo fàtte moo na bi ko fi yonent bi dund bi yonent bi dund fàtte woo ko mais dem na nga fàtte ko kon kii gëmuloon ngir yonent bi gëmuloon ngir yàlla dafa gëmoon ngir bakkenam bi ñu demee nag ba nga xam ne nodd googu ñëwoon mm-hmm. Ousmane indi ko mm-hmm. nee nañ nodd zawal mm-hmm. su ko defee nit ñi xam ne tey la vendredi ñu waaj ñu daal indi nag noddu zawal Seydina Ousmane ko indi Babacar bawu ko fi Omar bawu ko fi yonent bi bawu ko fi moom moo ko fi indi suñ ko noddee ñëpp ne ah tey la ajjuma di yow ñu ne nañ julli ji hmm. euh, xutba bi nag hmm. ilimaan hmm. su la neexee bu ñu noddi une heure et demie nga dem waxtaan waxal li ilimaan bëgg a wax su deux heures et quart jotee ilimaan ñëw xutba xutba dañ koy defa arab arab lay doon indi ay hadis. indi ay alquran. loolu mooy euh, xutba. mais dem di ko wax ci olof. te ñaar rakka yi remplacer ay yi nga def xutba dafa remplacer julli. yow nga jël ko di ko wax olof. est-ce que julli nga wax ko ci olof dana normal. léegi nag li tax gars yi ñemewuñ cee wax ngir rek boroom làmmeñ ñi nga xam ne rek dañoo ne ci tele yéeg site internet yeeg yor seeni làmmeñ mais wax lu moo jëriñ wax lu moo jëriñ amul njëriñ yow boo waxee du jëriñ na nga wax ñu la ngeen tararararara mu des fa jàll lu koy jëriñ amul njëriñ kon kon musiba mi nga am de ndax moom daanaka na dëkk bi bu feesee dëkk bi am na ñoom feesul ba tey am na ñoo xam ne lañu jàng euh, mu wér ñu nga ca am na ñoo xam ne nag la jàng wérul ñu nga ca ñun li ñu jàng xutba bopp bépp xutba bu ñu def te def ko ci luxa bu la arab xutba ba wérul xutba ba wérul juma jëyit te xutba bu wérul doo julli ba wér xutba ba wérul su fekkee nag dañoo def xutba am ko jiitu def leeral def bayaan ba deux heures et ñëw ilimaan ñëw ñu noddal ko mu xutba jaadu mais lii ngi fi kay nañ def lii rek moo gën a yomb waaye ilimaan ji ñëw naa waaw yàlla moom na da nga koo manul da koo manul ilimaan yi koy def dañ koo manul de dañ koo manul mais suñ ko mënee araab a gën a yomb dañ ko def arab mais di ko def ay olof mooy lan olof day wax loolu wala nga def ko naar gisoo yéey ñooñ fi génnoon di julli mais ñoo ñoo gën a dee sax ñoo ñoo gën a dee moom ñoom seen làkk la ñuy jullee waaye anam déggati nga ko fay na bu yàgg ay caaxaan la rek ay ay loo fi gis rek day fay déggoo fi woon élimaan yi eh, ñoo ñu yor seen kaaba déggoo ko yor seen eh, eh, lépp yor seen làkk yor seen téere boo xam ne dañ koo def neneen anañu waajal fuñ ko mujj dégg fuñ ko fuñ ko mujj dégg xam nga ne kooku da laal jigéen daf doon laal jigéen laal laa wax woo ko mu ñëw mu dialogué ko wax ak moom ba mu d'accord wala mu bañ booba yàllaa ko nar a feeñal dafa dugg ci lu mu warta dugg yàlla war ko feeñal yàlla génne ko nag feeñal nit dafay yem lu mën a am nañu yem lu mën a am nañu yem lu mën am nañu yem nit dafay yem ce que tamit oustaz ko ci comme que la ñu soxla euh, comme que ñëpp a ngi daje ci jumaa ji ñu ni kat nan ko def arab bu nu paree waxtaanee ko ci wolof est-ce que tamit actualité la ni comme que fii wolof lan dégg naa ko wax ci wolof. non non non du wax waaye actualité leen lañ dégg naa ko wax ci olof. Mhm. naar ya di wax ko ci naar. Mhm. bambara wax ko ci bambara. soosee wax ko ci soose ay na arab. waxal waxal ah ah <laughs> diine dafa am charte dafa am condition yoo xam ni daf ko tëral ne lii laa bëgg ngeen doxe ko ku wàcc nañ ko wax subaana la ku yéeg nañ ko wax subaana la ku avancé nañ ko wax subaana la ku arrière nañ ko wax subaana la na yem c'est ça diini dafa am règle constitution bu Sénégal violé ko nga xool violé ko ca kaso ba ngay tëdd waaw constitution bu Sénégal nga violé ko ñu yóbbu la kaso mais constitution bu l'islam nag waxal ci boobu boobu nga war a wax lislaam dafa am bu jumaa jotee nañu xutuba xutba bi na nekk ay alquran na nekk ahadis muy ñaari njëkk yi ñaar mujj yi na nekk jëf muy julli ñaari jëkk yi na nekk wax muy julli looloo ko indi marché wu kaase la woon bu mu dajeel dajeeg diine ji di fe di fëll yàlla wax yonent bi ne ko ñaari rakkaay def ko waxtaan soo paree ndax gan yi yóbbaale ko ñoom buñ gëmul nañ ko yóbbaale rek ñaar yi ci des nga def ko julli marché ba ajjuma la tombee ajjuma ja ñu bàyyi tisbaar def ko jumaa ñaari rakkaayu jëkk yi xutuba la ñaar yu mujj yi julli la waaw xutba loo ciy dugalee say affaire ay caaxaan la rek lii moo indi eh, lii moo ko indi waaye léegi nag tëralin charte condition dañ koy respecté soo ko respecté wul fii. da ko respecté fee. mais li nga wax noonu ni dañ ko daan dañ ko waxtaanee. pour ñu yóbbu ko. xam nga nit ki tamit lu muy yóbbu da koy dégg. nit bu yóbboo làkk bu mu dégg li du ko amal njariñ. te wa maa arsalnaa min rasulin illaa bi lisaani xaw ñi ko daganal ñëpp foofu lañ ko sukkandiku. waaw waaw ñi ko daganal. mën nañ ko sukkandiku foofu mais du fa sukkandiku. Hmm. xam nga lu tax. Hmm. booba am na. am na am na ay arab yu fa nekkoon. am na ñoo xam ne daa daari jee la ñuy làkk. am na yeneen xeet. ay xeeti xeeti xeeti xeeti fa nekkoon. du arab rekk fa ne. ay xeeta fa nekkoon. lu tax wax ko ci xeet wu ne. <laughs> déet waxal. gannaaw gannaaw gannaaw yónni wuñ yónente lu dul ci ci làmmiñu aw xeetam. na wax ci fu loolu. Mm-hmm. mais mm-hmm. leer na. dañuy fontu rek dañuy fontu dong. Mm-hmm. ba muy wax ay xeeti xeeti xeeti xeeta fa ne mais benn xeet la waxal muy arab ku dégg yaa xam ku déggul yaa xam mais araab rek suñu paree ki déggul mu laaj bàyyi naan ilaa bi ilaa bi lisaani xaw mi ah moo cam waa léegi lu tax alxuraan ñi di ko di eh, jàng olof lu tax jànguñu ko olof ñun ñun wàccul ci ñun di ñun ay olof lañ ñii ay joolaa lañ ñii ay njaago lañ ñii ay leneen leneen leneen lu tax wàccu ci ci wàccu wàccuñ ko ci loolu benn alquran moo am lu sa làmmiñ mën a mel danga ko jàng benn alquran ci ngay tënku yàlla tëralinam amul change laa tabdila li sunnatillaahi boo seetee fi ñu war a jàng yëpp bëri na mais benn fi ne bu ñuy julli lu tax ba ñuy julli gannaaw gannaaw ah, ah, ilaa lisaani xaw mi yi te am na am gaa yu fa ne te bokkuñ ci seen lisaan te ñu ko wax bokk ci saraxule alxuraan ji te ñu ko wax bambara te ñu ko wax soose te ñu ko wax njaago moom c'est très bien. ku feebar bu nga faju waaye xam itam fa ngay fajoo ci la bokk kaay ma jox la adresse bu baax bi baraka bio 100 pour cent naturel indil leen ay produits yu mucc ayib yuñ defaree ak suñu ay gàncax set na sel na sans effet secondaire waaw ñu indil leen garab biñ dippee kun fa yëkkoon waaw man soigne tout laa ko tuddee moo xam bopp buy métti asthme hypertension hypotension fibrome kyste diabète anémie ak yeneen xeeti jàngoro waaye yemuñ foofu góor ñi nga xamante nii dañuy perte réseau maanaam néew kattan ñu indil leen baraka chifa mi nga xamante nii moo mën ci wàllum ngóor Gora ba tey ci wàllum góor ñi ñu indi leen le papa waaw yow mi nga xamante ni da ngay jàmbat varicocèle hématurie oligurie ak infection urinaire waaye fàttewuñ jigéen ñi ndax indil nañ leen la maman miy dox ci kyste fibrome trompe yu bouché insuffisance ovarienne adresse bi benn la ñoo ngi Castor ginnaaw clinique Croix Bleue wooteel gaaw ci 77 454 17 90 wala boog ci 76 535 81 36 wala nga woote ci 78 592 22 09 ak baraka bio di nga sàmm sa wérgu yaram ak njëg yu xéewale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 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñee nee góor ngóoraa tax